asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñu muslu seytaane jàng faate ak fàllaxe ak naasi ak ayatul kursi ak salaatu ala nabi bu waay man ñaan yàlla li nu jublu yàlla defal nu ci tawféex ak taysiir ne ñu nu ko diggalee nu defe ko ni te daray seytaane bañ ca dugg daray àdduna bañ ca dugg daray jëy seexul xaddim bismillah bismillaahi mina saytaani rajiim ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu di nuyu mbokk yi kenn ku nekk ci tur ak ci sasan sant di leen baalu àq di leen baal xaq di wax ni li nga xam ni moom moo nu dajale dana nu ko ubbee ci ginnaaw bi ñu sante yàlla ci wooteb sunu borom bi muy wax naa yaa ayuha alladina amanu stajibo lillahi wala rasul isa daakum lima yuhyikum yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm yàlla bu ñu leen wooy ci loo xam ne yàllaa ko yonanteem rek moo tax jóg leen wuy ji mu mel ni kon loolu lu mat a sant yàlla la ndax mbooloo mu ne fu ñu daje fokk ñuy daje di am lu ñuy taxawal benn ñuy daje di taxawal loo xam ne ci yàlla la jëm wala ñuy daje di taxawal loo xam ni ci weneen yoon la jëm loolu mooy li nga xam ne mooy doxinu àdduna bu ngeen ko seetee ñi nga xam ne dañuy woote ci wàllu àdduna dinañ di fonk seeni bis ba buñ koy def dinañ ko def nu gën a rafete nii kon ñi nga xam ne dañuy woote ngir maanaam lu jëm ci wàllu sunu boroom li ñu gën a mën a taaral ci bis bi ak cant rek lay doon te dana rafet loolu itam mbooloo mu toll ni mbooloom pàkku làmbaay ak fi seeni tur àgg ak li nga xam ni moo suuxatoon pàkk bi maanaam li ko jëm eh, li ko li li ko eh, jur muy kàddu yoo xam ne ma nga bàyyi ko woon mag ñu baax ña ka ci gën ràññeeku di Serigne Babacar Ndiaye Cargaan yàlla na ko sun borom feyal ak mbooleem magi bawal yi kàddu googee ñu di ko sàmm muy sababu maanaam ay pàkk ba jur maanaam pàkk yoo xam ni euh, limu na lool ci ndakaaru kon dana rafet waxtu wu nekk ñi nga xam ne ñoo jóge foofee di wuyoo ci seen tur ñuy daje di taxawal ay bis yu mel ni bis bii nga xam ne moom la ñu jëm ndax buñ ko defut itam ñeneen jóg taxawal yeneen bis yoo xam ne dina wuute gii kon bis moom saa buñ la ca wooyee ne la bis bi ñuy taxawal maanaam ci yàllaa ko bu yonanteem la jëm takkal saw dàll sol sa mbubb jóg wuy ji boo demee boo fa fekkee yàllaa ko yonenteem alhamdulilah boo ko fi fekkut nga dellu ca sa yàlla ak bu yonente ak sëriñ bi ñii koy woote nag nga xam ne maanaam ay tuut tànk lañ leen mën a tudde mën na defi leneen defuñu ko wëlbati ko taxawal bis bu mel nii la cay warteef rek mooy ñu jàppale leen ci bu baax a baax mu mel ne duñu guddal jataay bi dañ koo tënk ci programme ginnaaw bi nga xamee ne Baye Moustapha joxe na ñaan gi ba noppi Serigne Ibrahima Diouf mi nga xam ne mooy président pàkku Lambaye moom dina wax ci wàllu pàkk bi ak leneen lu ci mën a jokk ci kàddu yu rafet bu ñu ci jógee Serigne Mayel Diop dina wax. ci wàllu soññee ci bis bi nga xam ne moom lañ dëgmal buñ ko jógee sëriñ Fall Ndiir dina wax ci bis bi xëy na lay sabab sax niñ ko taxawoo ba mu ëgg si fii buñ jógee ci loolu jëm ci wàllu xëy na ku woote mbooloo fokk nga tudd bernde ki nga xam ne moom lañ jiital mu nekk ci wàllu waañ wi war na xëy na am jigéen joo xam ne war na waa ànd ak moom mu présenté ko fii waaye xëy na jataay bi laaju loolu moom dina wax ci kàddoom ak kàddoog jigéen ñi muy sëñ Alassane Kane buñ jógee ci loolu sëriñ Ibra Fall Diop programme woon nañ ko waaye mel na ni joxaat na kàddoom sëriñ Ibrahima Diouf boo ko defee sëñ Jib juuf mi nga xam ne mooy jëwriñu mbooloo mi nga xam ne ñoom ñooy taxawal lii mu tëj leneen luñ ci mën ci wàllu kàddu yi rafet ñu def ko di leen fàttali nitam tànn gi nga xam ni moom lañu sëriñ bi tànnal weer wi nga xam ne moom lañ koy defee loolu mat sant yàlla la muy weeru rajab weeru rajab bokk ci yenti weer yi nga xam ni moom la ñuy tuddee al asxurul xorom nga xam ne su borom daf leen a fonk màgg leen ba bi ñuy taxawal lislaam xare di am dafa wax ne yenti weer yooyu saa buñ ci àggee nañ tiiral ngànnaay yi ba weer yooyee jàll rajab dafa bokk ci yenti weer yooyee wenn la ci yenti weer yooyee mu nekkaat weer wooyee xam ni itam ci la yonante bi sallallahu alayhi wa sallam rañaane woon wala ko wala boog ca lañ ko rañaane woon ñu wàcc ci julli kon weer la matam wu mat a fonk ñu amaat ci beneen cër boo xam ni muy sëriñ Mouhamadul Fadal di kenn ci njabootuk sëriñ bi moom itam ci la feeñ jamono ñu di ko taxaw sax bu fi mu ne ak njabootam di ko màggal waxtu wu nekk ñu di ko ànd ak ñoom kon weer woowu bu fekkente ni bi dangaa dem am loo bëgg a taxawal ci di sant yàllaa ko bi tam ak sëriñ bi ki nga xam ne moo fi toogal maanaam sëriñ Touba jox la bis loole dëppoog maanaam njëlbéen ak weeru rajab ci waxtu wu nekk loolu mat sant yàlla la. lamu ca wax itam comme ni ko Baye Tafa ñaane yàlla nañ ci sunu boroom jàppale. am naa lu jafe la sax ndax taxawal maanaam mbooloo moo xam ne dañoo daje doo sant yàlla ak yonente sëriñ ak ba jóge fi te daray àdduna raxu ca yombul ndax bañ jógee daje ne dañuy def lu baax la seenum noonu jóg laxasaayu ni maanaam dinaa yàq bis bi muy iblis wala xiyaasu billah yal na ko yàlla rëbb képp koo xam ne jóg nga samp lu baax mu samp ca ga ne dinaa ko daane waaye ñu góorgóorlu ci bu baax ba li nga xam ne moom lañu ñu sëriñ bi moytuloo bu ñu mënta moytu lépp itam la ci ëpp ñu moytu ko kon ñoo ngi wàcce foofu suñuy kàddu di jox sëriñ Ibrahima Diouf mi nga xam ne mooy président pàkku Lambaye mu wax ci wàllu pàkk bi. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa mbooloo mi maa ngi leen di nuyu ku ci ne sa tur ak sa sant xëy na li nga xam ne lii war naa ko wax ci mbooloo mi nga xam ne dañu di gone te dajaloo. bala ma koo mën a wax ba pare bala ma koo mën a wax damaa jiit bëgg a jiital ñi nga xam ne tey ñoom la ñu dara jaale bis bi ci kàddoog sëriñ taxaa gi nga xam ne gi moo santaane bis bii ndax dëkkit boo fa nee di organiser te empêché wu ñu la ci dara ka nga xam ne ki moo jiite dëkk ba war nga looy commencé nga commencé ak jant ci moom bon nag jant gi noo koy commencé ci le président de la république monsieur Macky Sall ak soxnaam Mariam fay Sall du ko tegit ci euh, monsieur Timbo Abdoulaye Timbo mi nga xam ne tey mooy mooy maire de la ville de Pikine di sant ki nga xam ne kii tey mooy sunu maire di Cheikh Diop di Cheikh Diop pikin dal Pikine Ouest di ci boole ki nga xam ne kii mooy Mamadou Bey di maire Dalifort nga xam ne moo coiffé Pàkku Lambaay tey jii di sant ki nga xam ne kii mooy Cheikh Alioune Alioune Bey di jàmmagal si Kambaaw di sant ki nga xam ne kii mooy sunu meer ca Lambaay muy docteur Assane Ndiaye ak ki nga xam ne kii tey mooy Momar ngoom di meeru ngoogam ak ki nga xam ne kii mooy Jibril caw di meeru Réfon ginnaaw cant yooyu yëpp nag ñooñu dañu noo dajale am kilifteen ci nun bon nag bala noo def dara war na leen jiital ci cant gi bëgga dugg nag ci nga xam ne kii ñooy mbokk yi nga xam ne kii yii tey noo neew ci pàkku Lambaay bii bawal daje fi kajoor daje fi njàmbur daje fi te ragal naa loolu ba ko mag ñi samp ëpp na ëpp na juróom fukki at mbaa juróom benn fukki te kenn musta dégg njàmbur bawal nangam nangam ay mbaal lenn lu fi ma sam ñu tegan lépp ci eh, darajaay ki nga xam ne que mooy sunu baay di sa Momar eh, di baay Mor Talla Ndiaye Dakar matériel nga xam ne fu pàkk bi sosoo ca Dakar ba léegi moo ko yor di doxal lu rafet moom mag ñi nga xam ne tey dañu fee newoon ba nag ñooñu dañu leen amal cant goo xam ne gi dañu ko war a sant ndax bu lii amee tey ñooma li may gën a rafetloo jataay bi nag moo di ñoom dañu feene ba dooni mag jël nun gone yi ne kat ginnaaw mag lan te sunu dox gaawatu danoo bëggoon nu teg leen sun seen kanam suñu kanam lépp loo xam ne lii yéen a ngi ci dugg ngeen waxtaan ceeg nun ba nu rafetlu ko ngeen def ko bon nag ragal naa ne bisab tey bi nga xam ne xale yi tey ñoo ko sos jële ko ca sëñ Murtala kilifteen ga nga xam ne joxoon na nañu ko mag ñi nga xam ne ñoom lañu fi remplacé kilifteen googu delloo nañu ne ko nun ñii moo waral bis bii tey ndax lenn loo xam ne li ñu ngi koy jëf ci ci yoonu murit mbaa leneen lu ñu dugg fokk ñu dajale nun ñi nga xam ne tey nooy magi pàkk bi waxtaan ceeg nun ba nu ànd ceeg ñoom d'accord bon nag mboolem njobootu pàkku làmbaay maa ngi leen di nuyu seen tur sant di xam ne làmbaay pàkku làmbaay benn bopp la rek njàmbur a ngi fi bawol fi lépp a ngi fi waaye kenn xàmmeew ci njàmbur ak ak kajoor bon nag ànd boobu nga xam ne yàlla boole nañu ko ba nu fi nee ba léegi remplace ci mag ñi maa ngi ñaan ci kàttan ak Serigne Touba yal na ko yàlla saxal te ku fi jóge ku ne yal na nga am yokkute ci ndigal li nga xam ne Serigne bi jox nañu ko. bon nag loolu daanaka moo doon sama wax daanaka pàkk ba fa ma sosoo ba yooyu sax daanaka xëñ na day gudd mbooloo mi war a wax bari nañu mais mën nañu gën a leeral fa pàkk ba sosoog li tax pàkk sosu ba nëgëni si. ndimbalante lanu fi ne amul ku dëkk Saalum amul ku dëkk fenn ku jóg ci ku jóge ci pàkk lu ñëw. yaa ngi ci biir pàkk bi ci la ju la boole te ragal naa noo ngi noo ngi def benn solidarité boo xam ne bii tey jii mboolem région yi ci senegal yépp fii mu ne bu nu seetee at mu ne la nuy génn ay millions lay doon ñoo xam ne day dégg pàkku làmbaay ndimbal la fa am ñu ñëw sàkku ndimbal ñu yëkkati ko jox leen ba nag noo ngi sant yàlla bu baax di sant yonant bu baax di ñaanit ki nga xam ne kii tey moo jiite tey réew mi mu je mu geesu pàkkub làmbaay waa làmbaay ndax am nañu bëgg-bëgg comme ñëpp ginnaaw nun nu nit ñoo xam ne dañuy sonal buur dem di ñaani audience ak ñaani xaalis ak lebi prêt bancaire ak lu ne lañuy yor sunu juróom yi ak sunu fukki ci la lijjanti yor ci sunuy kër di ci dibir sunuy mbokk maa ngi ñaan monsieur le président yow mi nga xam ne yaa juboote ñëpp dama bëgg nag gestu waa pàkku làmbaay waa làmbaay xam ne am na ñu bëgg-bëgg comme nit ñi ñëpp noo ngi ñaan yàlla ki nga xam ne ki moo la jiital ci kanam yàlla na yàlla yàggal taxawaay bi ci barkeb Sëriñ Tuubaa te bu ko kenn wuute was asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu monsi billahi min shaitan rajim bisimilahi rahmani rahim barkeb Cheikh Ibrahima Fall mbokk yi maa leen di nuyu kenn ku ne ci turam ak santam di ziar ñëpp di jiital ci nuyoo bi nag imam Baye Moustapha Diom mi di ci teg président Ibrahima Diouf mi di président Pakola Mbaye di ci teg Baye Mandiaye Diouf mi nga xam ne ni ci mag la bokk ak sëñ Pam Ndiaye mi ak sëñ Mbaye Ndiaye di jël nuyoo ñëpp nag di ko teg ci président Djib Diouf mi di ziare di tuub bu baax ne eh, kàddu yi dañ cee jot ci ndigal rek ah, muy kàddu yu nu bett waaye nag sant rek ndax bis bi ëpp na ko sax ah, di ziar bu baax suñ mu Muntaxaam suñ Basiiru di ziar bu baax suñ am dem suñ Moodu Mbenn di leen ñaan ñu yàgg fi loolu te wér comme ni ko ñi jiitu nañ ko waxee rek bis bi bisab cant la te cant moo gën a gaaw ci lépp ndax Iblis lim gën a li li Euh, li nit ñi gën a jafe li gën nit ñi gën a jafee def ci kaw suuf mooy cant te ba mu xuloo ak boromam da koy dinaa fexe ba jaam ñi doon la sant kon nag cant moom moo féete kaw lépp ki xam nag li jàpp na naqari na yàlla ban ñu ko wax mu di cant kon ku la ko def loolu dalaa dimbali kon nag bu fii sëñ Muntaxa ni di eh, toogaay fi toogaay fi Sëriñ Tuubaa jox ñu ndigalal cant kon cant gi war na mën a nekk ba pare ñu delloo njukkal it magi bawal sant Sëriñ Tuubaa delloo ko njukkal magi bawal ndax damay wax ne seex yi bari na waaye sëñ njaay Ndiaye Thiergane sëñ Aliou Diouf sëñ Momar Maane mbay sëñ Babacar Ndiir ñooñu seex yi ku leen gën a ràññeeku ko amut ndax seen njàmbaar seen ngor ak seenu fit ca daja ba daje woon ca làmbaay kon nag war na seen ak njaboot fépp fu nekk bu leen santaloo sëñ Touba te jëlee ko ci ndigal ki fi nekkal sëñ tubaa kenn ku ne war nga caaxaar sa tànkab tubay ndax li may wax ne entreprise pàkku làmbaay entreprise la boo xam ne mën naa ne amul fenn ci àdduna entreprise boo xam ne nii bët bu set mbooloo mi day yokk te doo dégg ay wax doo dégg coow doo dégg dara ak koo mën a doon xajoo nan la saa boo ñëwee boo xëyee lu fi sa wërsëg mën nga caa yóbbante ndax dul ne kenn démb la fi ñëw kenn du ko sédd lu jaay séddoo ko loolu ah doo ma amut feneen de waaye man de yaakaar naa ne yaatuwut kon nag lu mel noonu ñun ñi ko am nan ko xam ndax mbir kat am ko ta xamoo ko amut njariñ am ko ta xam ko nag xam ni nga koy jëfandikoo dara bu ko solo te loolu lépp damaa jàpp ne ci ndimbalal mag ñi barkeb Serigne Touba la jaale nekk ci ndimbalal ndimbalal mag ñi kon nag loolu war nañ koo fonk bu baax bis bi nag comme ni ma koy faral di waxee rek amut kenn ku jomb ñëw toog fii amut kenn ku jomb takk seen digg ñëw taxaw ca baas ba amut ndax képp ko fi ne ci barkeb Serigne Touba ngay dund kon nag ku fi taraanga man de ak ku mën a doon ak ku mën a doon ak loo mën a doon bis bi bu fekkee ne tey jii ni ni ñu koy programmer li nga xam ne moo fi war par kenn kenn ko man bari na ginnaaw nag par kenn kenn yi ko man bari na ñu boole ko ñëpp kon rikkwaay ñi nga xam ne nii ñoom ñoo ci ñoo ci tane nañ jàpp ci bis bi nañ jàpp ci bis bi ndax li ma wéttawoo da mooy jib mii ak ñum àndal ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo ko jiite su ko seen doole matawan du xanaa dañuy woote rek waaye la ci war lépp ñoo koy def kon nag noonu la demee te ñëpp ko bokk te kenn ku ne ci barke Sëriñ Tuubaa ngay dund kon nag bis bi na ci ñëpp taxaw kenn ku ne da ko war a def ni sa bis amut woo nan ma amut woowuñu ma fii kenn du woo kenn ndigal li kenn ko joxe ñëpp dégg nañ ko ku ko dégg ne kenn du waaxu ba ci yow di la wax boo barke moom kenn amu ko ndax ñëpp ay taalibe Sëriñ Tuubaa ndax ki gën a gëm a ki gën a gëm Sëriñ ba ki ko gën a wóolu loolu yàlla rek moo ko xam waaye kenn ku am barke bu toll ni jàpp ne da ngaa war a toog fa nga toog mbooloo mi waaxu ñëw naa la nii ak nii la amut ñëpp ay taalibe Sëriñ Tuubaa lañ kon nag képp ki fi ñi fi ñëw ñëpp lépp ci ñi fi ñëw bi ñëw ki indaalu ñaar téeméer bi nga ñëw dañ laa dalal comme nan dalale gune yi dong kon nag boo fi nekkee ba teraanga dab la fi dépp doon barkeb Sëñ tubaa ak mag ñi liggéey Sëñ Tuubaa ca la ca Lambaay kon bu nu wootee sant Sëñ Tuubaa kenn waru la caa jiir kenn waru la caa ëppale te sëñ si sëñ sëñ sëñ sëñ Seex ah, ah, ah, Jëmb Faal daana wax ne joxe ba jeexal moo ëpp doole fu joxe lu bari kon ki yor million joxe joxe ñaar fukki junni ki yor ñaar téeméer joxe ko du moroomam te gune yi ku ne xam na ne ku leen woo Sëñ Tuubaa ñu wuy leen ndax kenn ku ne la nga man yaa def ñi roote bu bagage ñooy dañuy roñ ñi ne ni ne la nga am yaa koy def kon nag ñi nga xam ne ni yàlla wërsëgal na leen dara ñoom ñëpp jàpp ci bis bi te xam ne lool mooy taaral bis bi tey lool mooy sant Sëñ Tuubaa dëgg nag du toog rek naan maa ngi sant sëriñ bi lu gën a ñor bis bi amul ndax bis bi dañ coo jot ci ndigal kon nag maa ngi ciy woo ñëpp di tuub bu baax kàddu gi daa dox ba suñun te amuñu mel ni pexe rek waaye daal li wax ji mooy lépp nan soñu ñun ñëpp te góor góorgóorlu te xam ne bis bi suñ bisa kenn ku ne lan ci man nga jàpp ci maa ngi sax di tuub baax ci kàddu jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërëjëfati sëriñ Touba jërëjëfati sëriñ Touba jërëjëfati sëriñ mbokki jullit yi mbokki taal bi fi teew ñëpp ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk sa tur ak sa sant di jégalu bu baax nag ci yëkkati ay kàddu ci gannaaw suñu kilifa yi fi toog ci jataay bi waaye ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaar bu baax di ñaan saa borom mu dool leen fa yàggal lool mu ànd ak wér ak taalibe gu sax dàkk barke Serigne Touba di ñaanal bu baaxit mag ñi nga xam ne ñoo fi jiitoon te sancoon pàkk bi te suñ boroom dogal ñenn ñi jiitu ji ñu ngi ñaan saa borom mu xaril àjjana ñu ngi ñaan it ñu fi des it suñ borom yàggal leen fi lool. te gën leen a dëgër ak gën leen a xiir ci sëriñ bi di santaar suñu borom bu baax a baax ci jataay bii nga xam ne teewee nañ ko daaw teewaat ko ren jii te bokkoon ci ñi nga xam ne ba sëriñ bi joxe ndigal la fa la leen fekkoon kon ñi ngi santaar bu baax a baax a baax ci jataay bi mu mel ni jamono bi nga xam ne suñu borom dogal na mbas mi agsi woon ci réew mi te nga xam ne suñu borom dogal na it waa pàkk bi amoon xelam ne nañ jël li nga xam ne moom lañ daan safare yot ko sëriñ bi keroog ba nga xamee ne dem nañ ba jébbal ko addi ji ba pare ca la joxe woon bis bii benn benn panub rajab mu waxoon ne bu nu ci àggatee kat nañu ca daje ca pàkk ba di ci sant sëriñ bi mu mel ni loolu yi tawfeex tawfeex la ci nun ndax euh, waa Lambaye day ñëpp war a sant sëriñ bi waaye dañ cee war a na man lii Cheikh Mouhamadul taxaa di wax ne noyyi gun noyyi war a di sant sëriñ bi waaye waa pàkkub Lambaye day war nañ noyyi guñ noyyi di sant sëriñ bi ngir la leen sëriñ bi defal day kenn ku leen ca mën a wuutu ku dul sëriñ bi mën mëntu na ne sëriñ bi rek leen ko mën a loon kon bu nu amee ndigal lu wér ci Seex Muhammadul Muntaxa mu joxe digal ci ne na waa Pàcc Kaaba Mbaay di daje ci bis boobu yi di ci sant sëriñ Touba loolee ak njàmbaar mayuñu ko xel mu neex mayuñu ko ndimbalal sëriñ bi rek moo si ci nun kon loolee nañ ko xam ba ñëpp jox ko day boobu yi nga xam ne sëñ bi xool na ko ba xam ne bis bii moo gën ci nun mu jox ñu ko di bisab sant ci nun ngeen xam ne cant moom mooy waral ndollet te ku nu sant ku ne daa am lu ñu sant la te sëñ Tuubaa moom jëruñu naan lii moo tax ñu war koo sant li tax ñu war koo sant moom waxtu wu ne kenn ku ne yaa sa bët. Hmm. loolee war naa tax nag woote bi ñuy woote bàyyi ñu góor bàyyi ñu jigéen li wër pàkk bi ak pàkk bi ñëpp a ko bokk. ndax waxi sëriñ bi yemul fenn xajul ci xajul ci pàkk bi rek ñëpp la woolu ñëpp la bëgg ñu bokk daje fii di sant sëriñ bi xëy na nag lam ca tudd waa pàkk bi doo daf caa jiital waa pàkk bi waaye sant sëriñ moom bu ñu ko wootee ci pàkkab Lambaay pàkkab Lambaay ak li ko wër la kon ñu ngi woo ñëpp di bëgg ñëpp xam ne bis bi ñëpp a ko bokk li ma ci wax dolli nag tuuti ji ay kàddu ci ndaw ñi laa ko gën a jëmale mooy nañu xam ne mag ñi dey ay jàmbaar lañu ndax liñ fi nekk di liggéeyal sëriñ bi ba nu ñu ñëw ci seen kanam ne dañ leen a bëgg a wuutu ji jëlloo yi di di liggéeyal sëriñ bi seen wet kon nun war nañoo xool mag ñi fañ tagat seen tànk ñu def seen ab tànk ci ak taalibe taalibe nag ba bañ ko doonee lañ waratu bëgg dara wala ñu man dara lu du sëriñ bi rek hmm. suñu bëgg gépp sëriñ bi la war a dale ci la sëriñ bi la war a yem ma maa ngi seer sëñ Tuubaa ni sëñ bi ci sama bëgg ci moom la dale ci moom la yem te it du man maa ci gën a néew ñëpp loolu nag ba mu amee war naa tax bis bi bu ñëwatee kenn ku ci nekk na bis bi doon sa ko sëñ Mayel Diop waxee am dërëm andil ku am ñaar dërëm andil ndax bisub cant lañ woote cant nag moom ku ko ku ko woote ko ne dafa am nga woote ko la tax nga woote ko nag loola war nga caa def sa kéemtalaay kattan muy sant sëriñ bi ba ñëpp xam ne sëriñ bi fii ñu koy sant lañ ko war a sant pàkkab Lambaay moom bu ñuy woote cant ak Serigne Touba ba ñëw fi ñoom ñoo war a jiitu ñoo ci woo ñëpp di jégalu nag bu baax ci kàddu yu juunoo yi mu mel ne fi ñu toog rek la wax ji xaw a métti ci mo ci ñun ndax jataay bi moo laaj loolu waaye sant gi moom mënut a peese sant na sa ànd ñëpp ni ko Serigne bi waxee muy benn panneau rajo saa bu ñëwatee nga daje ca di sant Serigne bi loolu yi ku ko am war ko fonk war ko téye loolu nag gone yi dañ ca gone yi ñoom ñoo war a jiitu ci loo ci cant koo gii ndax mag ñi nga xam ne dañ fay nekk di liggéeyal sëriñ bi ba nu ñu ànd ak ñoom di liggéeyal sëriñ bi ñoo war a jiitu mag ñi ci cant gi ñoo war a jiitu ñoo war a man mag ñi ci cant gi bu ñu mag suñu wayjur yi gën a gore ndax fi lañ leen fekk ñu nekk ci pàkk bi di fi liggéey di fi jaamu yàlla di liggéey di liggéey sëñ Tuubaa di fi dimbalee comme ni ko si Ibrahima ju waxee ndimbal la loo xam ne dafay yàgg ci pàkk bi te mosu fee jóg loolee nag nañ ko roy suñu mag ñi suñu mag ñi buñ ñu gën a gore rikkiwaay bu mu doon ci pas-pas bu mu doon ci ak taalibe taalibe kenn ku nekk war nga ñëw xeeb sax sa wayjur lam doon lam doon daw ci taalibe nga ne dama ko yokk loolu ñëpp la war maa ngi jégalu lu baax euh, mu mel ni kàddu yi moo xaw a dis ci nun rek ndax euh, woote bi. dañ ci ban nañ wax ne wax ne dañ ci doon seere ndax bis bi sëriñ bi joxe ndigal loolu nun fa la ñu fekk te joxe gam ko joxe ci yëg-yëg ban ci am fa ñu toog ca mbooloo ma xam ne na loola cant ga ci sëriñ ba sëriñ bi wax ku ko fekke woon te xool sëriñ bi ba nga koy wax ca melokaan ba mu nekkoon wax dëgg yàlla bis bii nga war ko joxaat yitte bu baax a baax a baax ndax bañ ba mu koy wax de dafa dafa dafa toogoon waaye dana ñokkeel ba jàkkaarloo ñun ne bis benn benn panab rajo bi bu ngeen jàggatee mm. na ngeen daje yéen ñëpp di ci sant Serigne Touba mm. loolu nag tawfeex tawfeex tawfeex rek moo ñu ko may mm. ñu ngi jéggul bu baax ci kàddu yi jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakatu jërëjëf Serigne Fall mu mel ni li nga xam ne moom lañu ñu war a ubbee bis bi mu jëm ci wàllu alquranul karim bi nga xam ne danañ ko fa jàng ak wàllu xasaayid yi nga xam ne moo war a nekk ubbeeg bis bi moom lañ bëgg a jox sëriñ Abdoul Ahad Ndiir mu leeral ni nga xam ne moom noonu lay doxee sëriñ Abdoul Ahad bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen nuyu baax di leen siyaara di leen balu baax te di leen ko baal di siyaar bu baax a baax suñu kilifa yu tedd yi suñu waajur yeeg suñu mag yi di ndogal ngànt bu baax a baax ci kàddu yi nga xam ne ñu ngi koy yëkkati seen kanam mu mel ni xëy na lu mënta ñàkk la rek. ndax yàlla daa dogal ki nga xam ne moo ko waroon a taxawee mel ni ngànt da ko fee dab xam naa ñu jaarale ko suñ jën muy xeeb yi ginnaaw loolu ñu ngi ñaanal bu baax a baax Cheikh mun taxaar suñ boroom gën ko fa yàggal lool te gën ko dolli ak wér mm, ginnaaw loolu nag xam naa <coughs> ñu jublu rek ci kàddu yi ndigal yi nga xam ne sant nañ ko mel ni li nga xam ne moom lañ war <coughs> tàmbalee bis bi muy njàngum alxuraan mi nga xam ne moo jiitu lépp ci ndigalal Serigne Daouda Ndiaye mi nga xam ne yàlla dogal na jamono yi ñu koy taxaw yëpp moom moo ko doon jiite. mu mel ni kàddu yi moo ko war na jàllale waaye xëy na ngànt moo ko dab tax ñu sant ñu ko kon xam naa ñu ngi fas yéene bu ñu àggee ca bis ba ak jàmm bu ñu xëyee à partir de 10 heures incha allah dinañ tàmbali njàngam alxuraan mi ak turusab xasida yi ba njulli tisbaar ah sëriñ bi nag nee na mi ngi ci woo mbokki taalibe yëpp képp ku ko yàlla man loo moo xam nga mën a liir alxuraan walla nga mën a liir xasida wala nga mën a def ay istixfaar wala ay salaatu ala nabi wala nga mën a wax ci jërëjëf sëriñ Tuubaa mu xam ne wonen képp koo xam ne suñ borom man loo na ko boo xëyee nga ñëw ca bërëb ba nga xam ne fa lañ koy defee ñëpp rek jàpp ci fu ci waay ma ne rek nga jàpp ci dinañ ko fa amal incha allah ba waxtu tisbaar ñu arrêté ko joxe waxtu yi kàttu yàlla xam naa ñoo ngi jégalu bu baax nag kàddu yi nga xam ne ñoo ngi koy yëkkati mel ni mënee ñu wax ci mbooloo waaye ndigal la loo xam ne dañoo dab rek asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. auzu billah bismillah inna waliyallah wa ma tawfiq illa billah barke borom Touba barke borom Daaru Salaam asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi siyaare mbokki taalibe yi fi teew yëpp rek buñ ci tuddee. imaam sëñ mustafaa Diop yóbbaale na ñëpp ak sëñ Ibrahima Diouf mi ngi xaaye mooy président pàkk bi yóbbaale ñu si des ak Baye Mandiaye Diouf ak kilifa yi teew yëpp ñu ngi leen ñaanal yàgg fi yàgg noo jiite si barke borom Touba di ñaan yàlla suñu borom bis bi nga xamante ne bii ci lañ jëm yàlla suñu borom àggal na ci jàmm ak salaam ci barke borom Touba di siyaare ñëpp di baalu àq ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm mu mel ni bis bi dafa am côté boo xam ne dañu ko faa dénk. muy wàllu waañ wi di wàllu xéewal ñu ànd seek suñuy jëwriñ yoo xamante ne bii xañ na ñoo war na taxaw fii sax di wax waaye da di ndigal moom caabi lu boppeelu bi bu yéesee tamit ubbi moo waral tax ñu toog fii di wax. ñu ngi ci ànd ak sëñ ku mel ni sëñ Ndonga njaay ak sëñ Sam lañ àndal ci waañ ak ñu ko ay sëñ Pape Diouf ak Serif ñooñu la àndal ci waañ ak maam ñooñu ñëpp ñoom la àndal ci waañ ànd ak ñoom ci liggéey bi. ci li nga xamante yi moom la sant ci bis bi ñu taxaw ko taxawaay bu rafet nag wax dëgg yàlla duñ ci tooy duñ ci tàyyi duñ ci tooxi lépp loo xamante ne bii war na ci bis bi ñu ngi koy taxawaay ci ci coona ak ci ay métti métti ak lépp waaye lépp nag sëñ bi jar na ko ndax sëñ Tuubaa moom ku xool fi mu jaar ba am li mu am lépp loo xamante ni dañ koy taxaw fu mu gën a metti rek moo gën a ëpp tuyaaba. andi ko ay soxna yoo xamante ne bi tamit ku mel ni soxna Abidja dañ ko ànd ñoom ci bis bi. ak soxna sungom ak ndoya ak mbenn mbolom ak soxna ndayasu njaay ak soxna ndayasu ndey sukkey ñoom ñëpp ak ayda ak soxna njole ñing ma nekk ca màngu ga ñooñu ñëpp doon ko ànd ak ñoom liggéey bi ak yeneen góor yàlla yi nga xamante ni ñëw jàpp ci liggéey bi kon loolu mooy li nga xamante ne bii mooy fi ñu dénk te fi ñu dénk tamit fas yéene na incha allahu rabbi lépp luñ ci man dinañ ko yokk ba maanaam nu mu gën a taw féexe ak noo xamante ne bii mbooloo mi bëgg nañu mel ni ñu ngi koy jéem suñu kamtulaay kàttan waaw jàmm nag moom sàkku la man ak maanaam maanaam dagaan waaye bëgg na daal maanaam ci kàttanu yàlla lépp loo xamante ne bii jox nañu ko lépp loo xamante ni mën nañ ci yokk ba mu taaru ak lépp loo xamante ni mën nañu fexe ba ku ko tiim maanaam soxol sedd nan ko def ci kàttanu yàlla yonent bi Sëriñ Tuubaa ak ñi nga xam ñoom la àndal ñu ngi siyaare ñëpp di balaq ñëpp di soñ ñëpp nag comme ni ko ñi fi jaar waxe ku mel ni suñ jëwriñ mayel ak jëwriñ Sëriñ Fall di soñ ñëpp tamit ndax mbir la moo xamante ne bii comme ni ko señ Mayel waxe du dem ci kenn di ko wax mbir mi moom sëñ bee ko joxe te sëñ bi ñëpp la ko jox pàkku la wax te pàkku làmbaay képp ku xëy yaa ngi fi daw wut si loo wut si yóbbu loo yor sa njaboot ak loo yor sa waa kon bu ñu fi nee sëñ sëñ sëñ taxaa jox nañu bis bu toll nii foo mën di nekk boo ko déggee war ngaa daw ñëw sos sa sos si addiya wala nga sos si sa saw ñaq wala nga def sa doole loolu mooy li nga xamante ne mooy fulla mooy fayda waaye toog fa nga toog naa gaa yi yëgaluñu ko waa pàkk bi léegi dañuy def duñ ko wax kenn ak yooyu yëpp maanaam da tardé rek moom ñii dem moom yoon yu sëñ am na am na yëg la waaye amul xaare waaw am na yëg la waaye amul xaare foofu fekk ñuy def si mbiram sëñ bi dawal jox bu dee loo am nga joxe ko bu dee saw ñaq la nga joxe ko loolu moom noonu la ñuy doxee ñu ngi siyaare ñëpp di baalaq ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. auzu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaan rahim asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen siyaara di leen jox seen wàccuwaay wi leen suñu borom jox di ñaan yàlla suñu borom suñu nu fekkee leen ci jàmm di tub bu baax kàddu yi nga xam ne ñu ngi koy yëkkati suñu kanam waajur yi ak suñu kanam kilifa yi mu mel ni day ndigal loo xam ne mënuñu ko ñàkk a def eh, kon ñu ñaan sunu borom mi nga xam ne moo ñu kàttanal ban toog fii fas yéene yëkkati kàddu mu kàttanal ñu ba kàddu gun fi yëkkati gun rek ñu mën koo dégg mën koo diglu mën koo dégg te man koo jariñoo eh, lépp lu ci dëng tamit ñu xam ne jëmmi doom aadama la rek lépp lu jub tamit ñu sant ko suñu borom ginnaaw bu ñu sante suñu kilifa yi nga xam ne ñoom lañ àndal liggéey bi ñu nekk suñu kanam di suñu waajur yi jiite woon liggéey bi ci pàkk bi mu rafet lool ba fii ñu toll ñu ñii di seeni doom ak seeni jarbaat ñëw fexe ko aw ci seeni loxo ba yóbbu ko fa fa fa fa neex suñu borom mu yemal ko fa kon ñu ngi ñaan suñu borom mu kàttanal ñu ba yéene juñ ci am ak bëgg-bëgg buñ ci am rek suñu borom kàttanal ñu ban yóbbu ko fan ko bëgg ci barke Serigne Saliou su ko defee dañuy tuub bu baax ndax xam naa <clears throat> mel na ni liggéey bi nga xam ne moom lañ bokk dafa ci am lenn loo xam ne dañu ko dénk muy wàllum baas gi te ko wax baas wax organisation te ku dégg woote bi ñu ni woo xam ne nit moom soo ko wooyee ba mu ñëw war ngaa xool fa nga koy dalal tey it nit soo koy woo war ngaa xam ki ngay woo mooy kan ak li nga koy wooyee mooy lan su ko defee nga mën koo waajal ba xam bu ñëwee fi nga ko teg su ko defee su demee dina xam ne yow fi nga ko woo méngoo na fi nga ko dalal méngoo na fi nga xam ne ak fi nga ko woo kon loolu euh, ci la ñuy ci la ñuy ñëw mu mel ni comme ni ko sëñ Abdoulaat Ndiir ubbee ginnaaw bu ñu commencé kaamil bi dinañ ci yokk kuréel yi mu mel ni kuréel yi ak Abdoulaye Diop Bichri ñoom ñoo war a taxawee bis bi incha allah bi noonu lañ ko fas yéene continuer kuréel boo ci xam ne jox na la temps rek boo jàngee sa temps ba mu mat da ngay wàcc beneen kuréel yéeg te base bi it fas yi nañ yéene organiser ko organisation boo xamante ne bii képp koo xamante ne bii ñëw nga fi di nga xam ne baas gii nii méngoon ak bés bi baas bii nii méngoon ak journée bi nga xamante ne bii moom lañ am ci sëriñ Mouhamadou Mountakha Mbacké su ko defee euh, di rafet lu bu baax a baax a baax teewaay bi nga xam ne yéen ñi nga xam ne yéen suñuy kilifa teewaay bi ngeen fa teewoon daaw mu rafet lool ñëw ànd ko ak ñun ba euh, lan ci bëggal ñu amee ko noonu teewaay boobu tamit moom la ñuy waat ndax euh, mbooloo moo gis mu nekk mag mënu caa ñàkk. ni ca mag mën a amee so ni ca mag amee solo nag noonu la ca gone amee solo ndax mag moom day jiite rek waaye du egg ndaw li nga xamante ne bii nag moom moo fas yéene tàmbali fa yéene egg kon mel na ni ndaw li ak mag li ñoom ñaar ñëpp ñoo bokk bis bi. te kenn ku ne xam na ne taarab bis ci mbooloo surtout ma lu mel ni la mbaay mag ñi da ci am solo da ci am solo kon ñu ngi leen ci wow bu baax rafetlu seen teewaay eh, bi ngeen fa teewoon daaw di sàkkuwaat tamit teewaay boobu tamit ngeen teewaat ko fa ren incha allah rabbi noonu lañ ko fas yéene doxalee. kuréel yi tamit dinañ kuréel ba 5 waaye dañoo bëgg bu ñu jullee 5 heures ba pare rek ci la Abdoulaye Diop Bichri di commencé ban julli gee suñ julee gee tamit foofu la ñu yemale programme bi ndax bëgg nañ mel na ni daaw affaire bi xatan na xat boo xam ne xañ na jot gi nga xam ne mag ñi amoon nañ ko ba war a toog jot googu amutoon ba xañ na bi ñuy dem bay jeexal am na ci mag ñu bari ñoo xamante ne dem nañ te toogaay bu yàgg baaxut ci mag su ko defee ñu teel a ñëw rek teel a organisé wu su ko defee ba kenn ku ci nekk man cee gis sa bopp bu soobee suñu Tuubaa dinañ ci jël suñuy matuwaay taxaw ci taxawaay boo xam ne képp ku ñëw ca baas ba rek di nga xam ne journée bii nii maanaam defe nañ ko ni nga xamante ni noonu la waree su ko defee ñu xam ne ñu góor góorgóorlu bu baax a baax a baax ndax Sëriñ Tuubaa bëgg koo liggéeyal taxul nga liggéeyal ko Sëriñ Tuubaa mooy tànn ñi koy liggéeyal kon ñun nan rafet njort na ñun ci tànneefu Sëriñ Tuubaa lañ bokk. bu fekkee dañoo bokk ci tànneefu Serigne Touba nag ndigal jóg te ndigal la jóg jóge ci Serigne tubaa kenn ku ci nekk jàppal ne ndigal loolee soo ñëwut ndigal loolee yow yaa ko bàyyi waaye ndigal loolee ci tànneefu Serigne Touba yi nga bokk kon nañu am pas-pas bu baax a baax ci liggéey bi am pas-pas bu baax tamit ci li nga xamante ne bii ndigal li moom la ñu jox mu mel ni kenn ku ci nekk jàppal na soo bàyyee rek su ndigal li dellu ginnaaw rek yaa ko dellu ginnaaw te dañ liggéey Serigne mbiram amul tànk ginnaaw tànk kanam la am kon mel na ni kon ñun taalibe yi bu dee tànk ginnaaw day am ñun ñoo am tànk ginnaaw waaye Serigne Touba amul tànk ginnaaw kon ñi ngi sàkku ci ñi nga xamante ne bii ñoo nekk ci pàkkab Lambaay ñu ànd mobilisé wu jàpp bis bi xam ne bis bi ñu am lu ko mënuñu am lu ko lu ko mag ñu am tamit lu ko sut tey bis bii dong la ñu am muy ndigal comme ni ko sëriñ jëwriñ Alsaan waxee ndigal nag jëfe rek ndax ndigal moom caabi lu su ëppee du ubbi su manqué ubbi kon ñu ngi sant yàlla suñu borom bu baax a baax baax di leen wax ne woote bi dégg nañ ko bu baax a baax a baax euh, mobilisation bi tamit ñu ngi koy sàkku ngeen defe ko ne waaye tamit ñu ngi ñaan suñu borom tamit bu ñëwee tamit fan leen dalal tamit nga xam ne fii ñu leen woo ak fi leen dalal méngoo na ak bis bi méngoo na ak euh, jëmm yi nga xam ne bi yu tedd yi nga xam ne ñoom lañ woo pour ñëw ci bis bi dañuy tiw bu baax a baax a baax ci kàddu yi nga xam ne moom lañ yëkkati di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan suñu borom mi nga xëy ne moo ñu may ñu commencé ko ci bismillahi rahmani rahim ñaan ko mu eggalee ñu ko ci alhamdulilahi rabil def ko ay ati atat barke Serigne ñu ngi nuyu ñëpp ñëpp siyaara ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. asalaamaaleykum yéen bokki jullit yi yéen bokki taalibe yi maa ngi jël kàddu gu ma Alaaji Mbay Asta Njaay jox ma di ko jot li bokki taalibe yi ñu ngi sant président Ibrahima Diouf di sant. Serigne Tafa Diop di sant mag ñi nga xamante ni bii ñoo encadré lépp ñoo ngi sant Ibrahima Fall làmp ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax a baax a baax a baax kàddu yi ñu fi wax yépp rafet na kon noonu rek nga xamante ne bi maa ngi dégg léegi Serigne Fall Ndiir mi li muy doon doon xale di ko wax ci Serigne bi loolu rek am solo ah, tànki kanam rek la yoonu Serigne bi am amul yooyu ginnaaw kon nag loolu yàlla nañ ko sëriñ bi gën a téyel ba ni nu ko bëggee nu defe ko nu kawe sunu njortu barki xaadimu rasul kon noo ngi siyaare mag ñi di siyaare ndaw ñi di siyaari góor ñi di leen soññ itam sëñ Mayel loolu mu wax lu leer naññ la ah sëriñ bi daal ginnaaw moom lañu fi nekkal lépp lu ci waay mën na ko ci def su boobaa nañu ko bëggee ñu amee konoon nu kawe sunu njort tey loolu bu ñu ko defee man nañ ko bu ñu ko defut itam mën nañ ko kon nañ ci góorgóorlu bu baax a baax a baax kon yàlla nañu sëriñ bi boole dimbali jërë ngeen jëf. kon mu mel ni loolu lañ doon sàkku ci mbooloo mi xam naa di sof tuuti rek ci yoo xam ne daf ñu cee dabaar ci woote bi nga xam ne sëriñ Ibrahima Diouf doon na ko woote ñu ngi koy woo ko mel ni jëwriñ mbàkk yu fay mi nga xam ne moo teewal sëriñ bi fii ci ndakaaru ak Baye jóge Dieng mi nga xam ne mooy jëwriñu ñaari guddi ndakaaru yi. loolu rek lañ ci doon sofaat di sant yàlla di julli ci yonent bi di sant Serigne Touba di ñaan jot bis bi yàlla nañ ko fekkee ak jàmm àggale ko ak jàmm ci barke borom Touba kon Baye Tapha mën ngaa def ñaan mbooloo mi yeewee ko. sëriñ bi dañu sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey